ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد القائل من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ak ci santam góor ak jigen mak ak ndaw di jotali nuyo khalifa cheikh ahmed khalifa sahib al fadati saaxibil allah wa raa ci denkané ci ay bés yi nga xamné ni ci lañuy jublu si tey muy bés yo xamné adina bi yépp ñi ngi fuuglu Sénégal di xaar ndax mooy Sénégal bi ñu xamoon ba léegi mu war ci mbooleem kilifa yi ak mbooleem ñi nga xam ne am nañ kàddu ci askan bi ñu wax ak nit ñi laaya leen biir delloo leen ci li nga xam ne ni moom mooy wareef yi nit ñi ci bés yi ñu jëm si rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine ji diine ji nga xam ne suñu yonantu bi sallallahu alayhi wa dafa ñoo wax ne ku itteewut mbiri jullit ñi bokkuloo ci ñoom xam nañ ne tànn njiital réew ci mbir yi gën a màgg ci mbiri jullit ñi la ndax mooy réew mi dajaloo jël seen doole ak seen kóolute teg ko ci loxooy kiñ óolu bés yooyu ci lañ jëm yàlla tabaraka wa taala moo ñu wax ne wal takum minkum ummatun yaduuna ila alxayri wa yaamuruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkari wa ulaika humul muflixuun na am ci yéen ñoo xam ne dañuy oote jëm ci lu baax di digle lu xiw di tere lu bon te ñooñu ñooy ñi texe ci buntab loolu ak ci buntab diine laayante biir la ci buntab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 مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا على من في أعلاها وقالوا لو خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا فإذا أخذوا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 ñun ñëpp am nañ droit ci defar ko waaye amul kenn ku am droit ci yàqu ko moo tax kenn warta yàq waaye kenn tim warta seetaan ku yàq te kenn tim warta noppi bañ yàq ci sa kanam élection du dara lu may tànn li nga bëgg xeex bi du violence xeex bi du saaga xeex bi mooy sa carte xëy dem ci mbañ gàcce gi tànn ki nga bëgg a tànn loolu laajut xeex laajut saaga xale saaga saaga kilifa saaga saaga mag laaju tim yàq réew loolu rek lañuy fàttali nit ñi ne bés yi ñuy jëm bés yu nekk soxla nañ ci teggin ak dal ak ànd ak sa sago ak xam yow yaay kan ak xam tim nit ñi ñooy ñan xam sa réew mooy lan xam ne bu yàqoo ñëpp ñooy ko yàqule nit ñi ànd ak dal googu ànd ak teggin googu ànd ak yar googu ñi dem ci ci jàmm génn ci ci jàmm waaye ak loolu yëpp sëriñ baa ngi dénkaane ñaan comme ni nga xamee ne commencé nañ ko bu yàgg du léegi waaye mu ngi def appel mu jëm ci mbooleem sénégalais yi ñi góorgóorlu ci ñaan yàlla ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam ñoo wax ne euh, jullit ñaan mooy ngànnaayam waxtu wu jëmee ci ay bés yu mel nii am na ay ñaan yu doon def ñaan yooyu ñu ngi koy fàttali mbooleem taalibe yi mbooleem njiiti ñi jiite zaawiye yi ñi jiite daaira yi ñu ko ci xam xam nañ ko ku ko ci xamul tim boo jokk pay bi da nga ko xam ñi góorgóorlu ci ñaan yooyu ñi dugg ci élection yi ci jàmm génn ci ci jàmm génn ci am Sénégal bi nga xam ne moom la àddina doon xool di yëkkati seen bopp di gis ne Sénégal réew la boo xam ne ni bu am démocratie la danañ wate buñ xëyee nit ñëpp dellu ci seen liggéey loolu la sëriñ bi di wax loolu la wax loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla defal yàlla wattul ñu suñu Sénégal wattul ñu suñu mag wattul ñu suñu ndaw wattul ñu suñu dëkk may ñi Sénégal boo xam ne Sénégal yi jàmm la Sénégal boo xam ne ñëpp dañ roy jëm ci moom waaye Sénégal boo xam ne dafay dox jëm ci kanam waaye du dellu gannaaw mukk yal nañu yàlla defal loolu bi jaahi mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ugliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بركة الخدم تجاني وبركة مولانا صاحب الفائدة مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله